biñ ko commencé site bi jël ko euh, gis ko waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy borom site bi ñu def lépp li nga xamante ne moom nañ ci war a def état rejeté na suñu dossier ci ñetti yoon maanaam pour bëgg rek ñu conformer ak li nga xamante ne moom la loi bi tëddal ci wàllub dëkkuwaay yàlla dogal aussi loolu yëpp ñu matale ko ñu matale mbir moomu yëpp ba nga ñu am suñu këyit yu leer tey gi fa ñu toll woon ci ci wàllub euh, démarche ak séddale mooy jàppoon nañ ne coopérative bi jeex na parce que lépp li nga xamante ne war nañ nañ ko ci kayit ci état ci lépp matal nañ ko ba ñu demoon ci notaire bi sax di séddale mais comme nu ko ñi ngi waxee tout à l'heure à notre grande surprise ñu gis loo xam ne dafa ñëw dal suñu kaw ñun ñëpp muy VDN bi nga xamante ne daf fiy jaar te ñu ne fii day am ñaari rond yoo xam ne day dal suñu kaw ñun nag loolu mënuñu ko bañ ci li nga xamante ne moom la état di doxal mais dafa am loo xam ne daf ñu ci jaaxal lool parce que nee naa leen depuis deux mille dix ou deux mille deux mille treize ñu ngi ci site bi xam nañu lu xew ci site bi yëpp trace bi am na fu mu doon jaar déplacé nañ ko lu mat ñetti yoon wala ñeenti yoon ba ñu ñëw fii dal sunu sunu kaw nii la preuve mooy fii ñu taxaw nii rek trace bi dafa jëloon ba ci ginnaaw nële mais ci dernière information yi ñu am maanaam bàyyi nañu euh, euh, jàkk ji nii ci jàkk ji lañ ko commencé demaat ba fële donc ñun li nga xamante ne sax épargne ñu ko woon jëlaat nañ ko suñu biir te ñun loolu la ñu mën a comprendre ñun mën nañu comprendre ay projet mais projet boo xam ne day déplacé wu du jour au lendemain aussi ñun à notre niveau ça pose problème et que aussi jafe-jafe yi nga xamante ne postiers am nañ ko nan la waaye postiers yi bu ñu góorgóorloo defaru di cotiser as tuut la ñu yor jafe-jafe ñu am suñuy salaire di tardé sunu kër yi di yëngu engagement yi ñu amoon au niveau des banques mënatuñu ko amatuñu ko bu ñu ñëwee lii war a dal suñu kaw day doon loo xam ne lu diis lay doon te xam naa ne en tout cas du lu yomba loo xam ne postiers yi war nañ ko mën a accepter wala ñu digérer ko. ci li ñu xam aussi ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq projet boobu muy le préfet dem nañ ci moom waxtaan ak moom dem nañu Ageroute waxtaan ak waa Ageroute dem nañu au niveau de la gouvernance demandé woon audience mais amuñu audience mais en tout cas échangé nañu ay correspondance mais ñun dañu lancer un appel solennel un appel solennel au président de la République. Euh, son excellence monsieur Bassirou jomay Diakhar Faye na bàyyi xel ci post bi na bàyyi xel ci postier yi euh, autorités yi nañu def yërmande ci postier yi postier yi sonn nañu bépp décision boo xam ne war nañ ko jël ci lii nga xam ne mooy sit bi nañ ci ànd ak postier yi waxtaan seex postier yi ba ñu mën a d'accord ci kàddu pour ñu doog a jëfe yu mel noonu parce que les coopératives boo koy dégg ay cent vingt personnes doon ay cent cinquante personnes mais coopérative bu ëmb cinq cent cinquante personnes yàlla sutural la nga ciy dox amoo ci benn jafe-jafe ci kayit ba fi nga toll nii ba ñi ñi lépp li nga xamante ne defoon nañ ko comme ay ay ay au niveau de la banque ñoo commencé di ko tabax ñu xëy arrêté leen loolu jafe-jafe lay doon ci ñoom postiers yi jaaxle nañu postiers yi jaaxle nañu ñu ngi tàllal loxo nag le président de la république a équipe bu bees bi nga xam ne moom nañu fal ñu am yaakaar lool ci ñoom yaakaar bu bëri la ñu wekk ci ñoom pour que lii nga xam ne yaakaaru ay euh, père de famille ak mère de famille la mu bañ a doon yaakaar bu tas ndax mbir yi jafe na lool suuf jafe na lool mais boo góorgóorloo ba nekk ci norme amul kenn ku ñemee jóge fële nela la benn lopin de terre moo ko moom wala benn centimètre carré moo ko moom ci euh, site bi ñu taxaw nii kon boog la ñu waroon def ak la ñu warloo woon ak li état di laajte ci dëkkuwaay loolu yëpp respecté nañ ko